asalaamaaleykum mbokk yi safoo ko safoo seen seen mbir yi leeral SN dal nag jàmm si tënkum xibaar ñuy wax si xibaar bi nga xamante ni moo ñeewal njabootu ki nga xamante ni moo président Ousmane Sonko ay soxnaam demoon fi nga xamante ni mooy dëkk bu tedd boobee di Touba dëkk bu tedd boobee di Touba nag dafa am benn waay boo xamante ni daal soxnaam dafa amoon bi mu ëmbee nag laa amoon yéene nee na bu amee doom mu tuddee ko kii nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko waaye li yàlla di def mu am doom ñaari doom yëpp nekk jigéen. mu tuddee leen ki nga xamante nii mooy soxna yi Ousmane Sonko kenn ki mu tuddee ko soxna Khady keneen ki mu tuddee ko ki nga xamante ni mooy soxna Anna ñoom ñaar ñooñu nag àndoon tey dem seeti ki nga xamante ni daal mooy seen turandoo yooyu noonu nekk fi nga xamante ni moo di ci Touba. waaye si dem boobee tamit profité nañ si dem tamit rencontre ki nga xamante ni mooy yaay ki nga xamante moom lañ fa tuddee kii di Ousmane Sonko. ñi nga xamante ni nag ñoom lañ seeti woon ñooñee si quartier yi lañ nekk fa weesu Touba. quartier bii di Aliya ak quartier bii nga xamante ni moo di Ndindi mu nekk nag dem boo xamante nii nag patriote yi nga xamante ni ñoo féetee foofu sa Touba kontaan nañ si lool dem boobee nag ñu ngi si àndoon ak ki nga xamante nii mooy Cheikh Thioro Mbacké ak ki nga xamante ni mooy Imam Dramé